asalaamaaleykum marhaban bikum dal leen ak jàmm ma xëyati ñëwati waxati ngeen déggati li yéenekaay yi xëyati bindati dooree ko ak source a mi xëyee coow la dox ca diggante magistrat yaak awokaaya journal bi xëyee UMS di union des magistrats du Sénégal ña nga xam ne lu ñu yàqul kookee nga xam ne mooy maître Mbaye Guèye rek dañu ko fàtte ci loolu moom maître Mbaye Guèye ñu gis ne ni ki àjjuma dafa rek daa di génn di xamle ne ñooñee nga xam ne ñooy magistrat de parquet yi di procureur yi la mooy na leen neexee rek la nuy doxalee ci mbirum article 5 bu règlement bu UEMOA ci loolu waa UMS ci njiital Téliko ne gis nga kii di maître mbay Guèye dafa war a nag bàyyi lii muy def ndax ñun magistrat yi day lu wérte wóor mooy du ñu bàyyi benn doomu aadama benn nag laa wax donte sax nag bâtonnier des avocats nga de ngay ñëw di ñu mbii fa foo rek sànni doj ci loo xam ne tegoo ko fenn ndax li wérte wóor Souleymane Téliko ki ñooñam ne gis nga kookee di maître Mbaye Guèye loolee nga xam ne moom lay joxoñee baaraamu tuuma magistrat yi le du loo xam ne sax moom teg na ko fenn ay mbirum xeex la rek ba tax kookee di mbay géey di yëkkati ay kaddu yu ñaggas yu ñaaw yooyu di ko teg seen kaw magistrat yi ne dafa doy sëkk kookee di mbay géey daa war a noppi nag donte mooy bâtonnier des avocats mayu ko nag cër gu toll ni mu ñëw di bëgg a yilif magistrat yi ba tax mu leen di yàq lu leen neex naka noonu journal le quotidien le quotidien daa di koy féelu ne li wér te daal mooy magistrat yi moom déchargé nañu parquet bi de di procureur yi waaye la wér mooy chargé nañu kookee nga xam ne mooy bâtonnier des avocats ak avocats yi ba léegi journal Le Quotidien daa di jox kaddu kookee nga xam ne ñooñee nga xam ne ñooy waa UMS ñu ne li wérte woor daal mooy maître mbay Guèye mii ay xam daal la daa di indi ci li nga xam ne mooy euh, seen diggante ak magistrat yi waaye loole na leen sori ndax moom nekkul sax koo xam ne nag moo leen war a jàngal de mu ngoog maa nga ca journal L'Observateur moom mi xëyee mbirum politique mel ni kuy bàkk Macky Sall journal Youssou Ndour bi ne Macky Sall daal li wér te mooy ci jamono ji la mu gën a bëgg mooy réew mi jëm kanam ba pare li nga xam ne mooy démocratie bi mu gën ko dëgëral waaye journal bi yemu fa de nee na la wérte wóor mooy li nga xam ne moom moo jëm ci dialogue national bi ñu doon laam-laamee ku koy jiite moom jiitu réew mi Macky Sall daal dinay tànn de ka mu tànn de fa Amara Ibrahima Sagna lay wuyoo doonoon na fi ci jëmi jamono jëwrin bi ñu dénk wàllu biir réew mi ci nguurug Abdou Diouf ci loolu journal bi ne ñu Macky dal woteel na kookee nga xam ne mooy fa Amara Sagna sursu a ba tey daal di dellu si waat ci lu doy waar le nga xam ne moo Eh, ca itali rawatina ca Milano ca Milan eh, foofee ab sénégalais boo xam ne eh, fa la nekkoon di daan dooleem di moodu moodu moom nag ci jamono jii de ci jafe yu métti ca la nekk ndax ci jamono ja nga xamee ne moom gis na ne saytu na wér-gu-yaramam ba ñu xamal ko ne li des ci fanam bëreewul dee moom moodu moodu boobu ci jamono ji la mu bëgg mooy daal di dellu si fii ci Sénégal bu ko defee buy ñàkk bakkanam mu ñàkkee ko ci wetu njabootam waaye ba tey jii de mel na ni kenn defalu ko ci loolee nga xam ne moom la bëgg de ba tax ñoom ñoo di moodu moodu ya di yuuxu wàllu complot ngir rek nguurug Sénégal daa di ñëw jàppale leen bu ko defee seen ñooñ googi daa di mën a dellu si fii ci Sénégal mu ngoog maa nga ca sport ga dee stade yene kaay mi xëyee suñuy gaynde yu ndaw yi le journal bi ne ñu li wér te wóor mooy ñi nga xam ne ñooy gaynde yu ndaw yi seeni at neew ñaar fukk dee ñu ngay xuus de ñu ngay xuus bu baax a baax sax nag ci coupe du monde boobee nga xam ne ca la ñu nekk ci jamono ji ca Pologne journal bi ne li wér te wóor daal mooy huitième ba moom ñii di gaynde a fubal moom gagné bu ko defee ma daa di dugg ca lamb jë fekk fa sunu làmb ma dem kër Fallaye Balde fekk fa kookee nga xam ne mooy Jules Balde di mag ci Ama Balde moom Jules Balde ne ak dada dafa doy li wér te mooy saison bi moom bu jàllee mbirum tafaati nag Ama Balde dañu koy rek daa di gas ba mu xóot ñu suul ko ndax la wér te wóor Jules Balde ne Ama xaarul kenn te Pape Abdou Fall mii xaarul kenn de Jules Balde ne li ko dalee Gris Bordeaux Modou suñuy adversaire maanaam daal seen mbër di Ama Baldé ñii la war a mën a bëreel lu ci manti am man maa ngay sori làmb ja dee balaa ñu maa daan daa di songaat journal bi nga xam ne moom mooy journal enquête mi xëyee soxna yu Sénégal ñoom de ba futtu la ñu def bokk na ca ñoom nag ña nga xam ne ñoo nekk ca pencum ndaw réew ma nee nañu li ñu bëgg ci jamono ji mooy loolee nga xam ne mooy viol ñu daal di koy criminaliser ba noppi li nga xam ne mooy peine de mort ñu daal di koy delloosi maanaam ku faat ñu faat law ci miim réew buñ ci li pexe lambaay dana ñaaw lay raam nag ca ñag ba la jëm te bu ñu ko karul gaaw dana fa amub kër lii yéeme na saa su ne ñuy gis ay faat bakkan ci anam yu doy waar journal enquête ne limba foo ko natt rek weesu na ko bëri na lool ci ay doomu aadama yoo xam ne fii ci Sénégal faat nañu seen bakkan ak lu ci mënti am daal soxna yii fas nañu yéene daal di dugal lii ci assemblée nationale ngir mu nekk loo xam ne dinañu ko daal di wote ak lu ci mënti am lu mu mënti doon rey gi moom doy na waar